abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa ngeen di am xibaar. tàlleen jàmm seen chaîne bii di FTTV kii di Pape Alé Niang yëkkate na ay kàddu daal di rafetlu kàddu yi nga xam ne ne kii di prêtre André Latyr Ndiaye yëkkati na ko dal di koy jëmale ci ëttu politique bi ci réew mi di Sénégal kookee di prêtre André Latyr Ndiaye li mu wax mooy que ne. ci réew di Sénégal ci élection présidentielle 2024 état fi ñu candidat bu bëgg a bokk ci élection yooyee mu daal di ci élection yooyee ndax ne ci candidat yooyee ñu éliminé am ñi nga xam ne ne ay espoir lañu ci Sénégalais yi te ne nit ki espoir rek day ko candidat yépp daal ci élection présidentielle 2024 la André Latir Ndiaye yëkkati woon na daal ci ëttu politique bi ci li ni mel nak ki di Pape Alé daldi daal di daldi rafetlu bu baax taxawaayu kookee di prêtre André Latir Ndiaye ba nopi daldi di Sénégalais yi taxawayu église ci ëttu politique bi ci réew mi di Sénégal ki di Pape Alé né ci événement marché en 2021 église dañu génnoon daldi woné sen position daldi addu ci situation politique ci réew mi di Sénégal ne li ni mel la kii di curé André Pape Latir Ndiaye amalaat ci réew mi di Sénégal ci situation politique buñ toll nii ne église nag moo ngi wone que ne donte ñoom ay minoritaire lañ ci réew mi di Sénégal waaye dañuy jël seen responsabilité di dëggal seen bopp di wax li ñu war a wax te loolee lu ñu war a rafetlu ci réew mi di Sénégal kàddu yi ni mel la kii di Pape Alé Niang daal di dénk kii di prêtre André Latir Ndiaye abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça et ne